Euh, mu nekk chef religieux euh, ci Touba waaye tamit mu nekk responsable politique boo xamante ni euh, ràññee nañ ko ci Sénégal rawatina fii ci département bu Mbacké mu bokk ci parti bi di bokk gis-gis élection locale yi nga xamante ni tamit moom la ñu dëgmal mooy candidat bokk gis-gis ci conseil départemental bu Mbacké moom la ñu fas yéene seqal waxtaan tey honorable député ñoo ngi am mbégte di la nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay fay di mbégte ci dalal la. si émission bu am solo bi nga xamante ne heure bu jotee rek askanu yëpp ñu ko déglu. Euh, honorable député euh, fi ñuy commencé tey sunu waxtaan euh, moom mooy poste premier ministre bi nga xam ne conseil des ministres bi passé président Macky Sall daan nay li nga xamante ni tey mooy projet de loi boobu fas yéene ko yóbbu fi nga xam ne mooy assemblée nationale delloo siwaat poste premier ministre yow lan moo ci sa xalaat. waaw di sant yàlla bu baax di gërëm sëñ Touba di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi di nuyu mboolem askanu Sénégal rawatina waa Touba gi nga xamante ne ni ñoo ma tànn yóbbu ma assemblée nationale ak département bu Mbacké. li nga ko wax rek en tant que député en tant que citoyen nekk tamit euh, euh, vice président commission de loi nga xam ñoo war a saytu loi yi nga xamante ni moom mooy jaar assemblée di doxal réew mi ma nekk ci vice président kooku yaakaar naa ni dana ma soxal dana ma ñor. Mm-hmm. loolu moo waral tey euh, biñ koy dindi. ma taxawoon ni leen poste bi buñ ko dindi. parce que dama defe ni li nga xamante ne mooy li ëpp solo mooy tënkuñu muy suñ constitution ni ko Macky Sall di caxat-caxatee dafa bari te bu ñu dindee poste bi dañuy caxat-caxatee laalaat li nga xamante ni mooy constitution bi euh, loolu moo waral te bu buñ ko laalee dañuy laal règlement intérieur Assemblée nationale ndax entre Assemblée nationale dafa am ay sañ-sañ yoo xam ne daf ko amoon muy doole joo xamante ni bu gouvernement bi nekkee di liggéey te li muy def amul satisfaction ci population bi Assemblée nationale moom la population bi sant moom la sas ni ko bu la neexee mën nga daani gouvernement boobu noonu décide ko loolu moo taxoon article 97 ak article 98 ak article 99 yëpp bi nga xamante poste premier ministre mi ngi dem daf ko yóbbaale woon assemblée amutoon benn sañ-sañ li ma lay wax ma la maanaam benn xott la rek boo xamante ni dafa nekkoon motion de censure amuñu ko woon amul déclaration politique générale hmm. amul tamit leneen loo xamante ni pour lu waroon a a def la pour pour gouvernement bi loolu moo waral tey comme dañoo d'accord toon pour ñu dindi gi wax Macky Sall ni ko bul ko def parce que boo ko defee réew mi dafay bloqué Macky ni dana ko def parce que dafa soxla fast track dana ko def parce que coordination yi ministère yi amul wala boog dafa yeex ñu ne ko boo ko defee tamit yàgg-yàgg da nga dellu si ginnaaw ndax ba ko fa defee dafa amoon problème diggante moom Mamadou Dia bi ko Abdou Diouf defee tamit politique tax mu def ko te ñoom ñëpp dañ see dëttuwaat ginnaaw te ñoom ñoo la mag ñoo la ëpp maanaam xam-xamu politique ñoo la si jiitu li taxoon ñu def ko ñoom xam nañ ko mais bi ñuy deltuwaat ginnaaw di ko def xam na ne lan deful mënuñu ko woon man ko même chose ba boo ko defee tamit da nga si deltuwaat ginnaaw loolu moo war tey bu demee ba deltu si ginnaaw ci la nga xam moom la defoon damay saluer aussi courage boobu noonu ndax dama naan moom juum na xam na ne dem na muntu demati fast track bu mu doon wax fas arrière la fi mu toll nii may wax ak yow affaire bi doxul léegi il faut que mu def loo xamante ni dafay wanawaat ni Euh, poste premier ministre il faut mu delloosi ko après def ko procédure urgence la ko def indi war ko indi assemblée nationale. loolu tamit daf lay jàngat ne la rek nguuru Macky Sall gi daanaka dañuy tataxu di làmbatu parce que fu ñu teg seen tànk defe ni dana dox. fekk ni foofu fooy. bi gën a na ñoom euh, làmbatuñ seen porte parole bi ministre mais xam nga moom Omar Gueye moom yóbbaale la rek maanaam nekk na koo xamante ni daanaka du wax loo xamante ni Macky Sall waxu ko wala neexul Macky Sall kooku mënoo ko considérer làmbatu mënut a paase nga ni lii moom moo tax nga def lii. tey jii loolu nga xam ne moo tax nga def ko nga dem ba si biir xam nga ne loolu amul nga deltooy ginnaaw loolu lamb mënu ko passé ndax bala ngaa tënk wala ngay def dara 2019 ba 2021 muy ñaari at war nga xalaatoon ni lii boo ko defee fii la jëm ndax dina nit ki da ngay planifier nga xam ne fa nga war dem mais ku ne xam na ne situation politique bi doxul économique doxul santé bi noonu agriculture waxi nopp tey jii maanaam ñëpp ngi am ay problème transport bi boulangerie yi problème yooyu yëpp syndicaliste yi njàng mi yooyu yëpp dafa daa am koo xamante ne fil daa centre nga xamante ni mooy premier ministre dafa laa taxaw di def ay réunion ak ñoom li mu mën a saafara mu saafara ko li mu mun saafara mu yóbbu ko sa président bu ko defee ñoom bu ñu toogee ñoom ministre yi nga xam ñoo seqaloo toog mu joxe orientation joxe loolu bu ñu jógee conseil des ministres ba pare lan fa dogal day ñëw si premier ministre premier ministre coordonné loolu ñu mën koo doxal mais loolu lépp dara amu si. ba pare ñaareel bi Macky Sall euh, comme xam ne day jeexal mandat ba pare mu yor mandat Union africaine am na yoo xamante ni mu mënu ko bañ a ñàkk a def. d'accord mais euh, honorable député li ma jaaxal ci mbir mi mooy président Macky Sall mënuñoo wax ne xamul njariñu poste premier ministre ndax moom nekk na ci gouvernement euh, yor benn ministère am. premier ministre ci gouvernement boobu moom tam wëlbatiku na nekk premier ministre kon jàpp naa ne dund na euh, ab premier ministre nekk kilifaam nekk na moom tim premier ministre si jamonoy Ablaye Wade kon bu defee lii nit ñi jàppoon nañ ne moom li muy def euh, xam na ko. xam nga nit ki danga def loo xamante ni da ngay dem ba si biir nga xam yow lii nga si bëggoon mënoo ko nga deltu ginnaaw te loolu la def. lépp li mu doon nekkoon ci jamono yooyu dafa nekkoon ci kilifteefu nit ndax bi fi nekkee bi mu nekkee surga diw benn premier ministre bu ko yilifoon ginaar bi ñu dàq premier ministre boobu moo indi ko Ablaye Wade moo ko yilifoon loolu lépp xam na ni premier ministre am na rôle bu am solo bu mu war a lan moo taxoon mu dindi ko mooy moom def woon na ni comme cuune gi mu doon wane bi mu nekk premier ministre Ablaye Wade ba nga xam ne procès yu baree bari na amoon na mais taxawoon na def na ni ki fi nekk premier ministre loolu lay def si ay procès mu ne kat dama bëgg léegi lu gën a gaaw loolu ñu mel ni dossier directement ma di ko traité mais koo xamante ni tey boo wàññee un mois li ngay génn bitim réew moo ëpp li nga fi nekk kooku noo mën ay dossier loolu mooy problème bi léegi nag moom dem na ba nga xamante ne xam na la mu doon wax munu ko dett na si ginnaaw ko koy. Ah, même euh, lu jëm ci wàllum euh, suñu constitution bi gis nañ ne laal na ko lu toll ci euh, juróomi yoon cinq fois ci ci neuf ans yi ñenn ñu jàpp ne daal constitution bi daal maanaam torsion la ko jàppee fowukaay daal la ko jàppee. waaw fowukaay la ko jàppee parce que moom nekk nit koo xamante ne faalewul constitution bi lu ko neex lay def. sénégalais si bopp moom la jàpp foofukaay parce que sénégalais tegul fenn ndax ku ne xam na ne Macky Sall amul benn respect bu mu def maanaam sénégalais yi lu ko neex lay def def na ne moom comme ni mu ko waxoon moom mooy doole yi mooy nangam nangam ba tax na loolu mu def rek jig na ko loolu moo lay wan rek ñu man li ma jàpp mooy Sénégal li ñu ko lebal Macky Sall mu fayu leen naar bu xoromam parce que Sénégal dañoo sacrifié jël seen lépp jébal ko Macky Sall bis bi toll 5500 milliards ñu ne ko téyel jox ko sécurité jox ko maanaam santé moom buy génn ñëpp taxaw ba mu jàll mais kooku nan nga war a manifester lu dul considération ak yëg leen bu fekkente ne loolu lépp amul nag di jël constitution bi nga xam ne ñëpp ñoo ko seq muy sàtt ndeyu réew mi tey jii nga di ko salfaañ salfaañ goo xam ne gu jéggi dayo la loolu yaakaar naa ne dañ koy ñaaw di ko naqalu dem na ba ci assemblée nationale ndax fi mu toll nii tey boo jëlee constitution bi ci assemblée nationale ku ne xam na ni député yi mi ngi war a nekk téeméer député ak juróom benn fukk ak juróom fi mu toll may wax yow matut dafa manqué benn député député yi nekkoon maanaam yi nga xamante ni mooy mooy mooy député yi Godomp ki si mujj faatu muy Mariama Ndiaye amul ko ko ma a remplacer. lu tax mooy ña fa nekkoon titulaire faatu na ña fa nekk suppléant faatu na dañoo war defaat élection mais Macky Sall def élection yi te yoon dafay wax ni bu fekkee loolu am na dañuy organiser si departement boobu noonu élection yoo xam élection député la te moom war nañu koo def te Macky Sall xam na ko te fi mu may wax ak yow Assemblée nationale li muy délivrer valable ndax 165 député ñoo war a am. cent 164 moo am assemblée fi ñu toog may wax ak yow benn député faatu na te kenn mënu ko remplacer. léegi yow euh, lii bi nga ko waxee assemblée nationale lan la la tontu. <laughs> mais xamuñu xam nañ ko. xam nañ ni aussi dañ maanaam yoon daf leen a sant ñu tëgg élection. mais ñoom fii ak si wu ma jëru tëgg élection. te dama defoon ne maanaam nit koo xam ne da nga war respecte constitution benn bis. wurloo fexe maanaam ba assemblée nationale du valable benn bis wuroo fexe ba nga xam ne bi. maanaam li mu war a dogal dogalu ko kon loolu mooy wal na rek moom faalewul constitution bi. d'accord euh, mais yéen a ngi xaar euh, projet de loi boobu assemblée nationale pour ngeen euh, examiner ko. waaw projet de loi bi ñëw na ñëw na assemblée nationale ñun ñu ngi xaar nag maanaam les conférence de président am bu conférence de président amee jox ñu ko ñun commission de loi. mu ñu ko commission loi bu ñu ko jëlee nag pare càmbar ko après nag maanaam xool li nga xam moom lañ a xool bu fekkee jar na ñu def ay amendement wala am na yoo xamante ni buy ñëw. la mu yóbbaale woon war naa indaal walu tonn walu ko ëpp ndax doole ji ñu joxoon Macky dafa ëpp war na ko dëndiwaat delloo ko ñi nga xamante mooy assemblée nationale bu fekkente ne daf ko joxaat assemblée su boobaa ñun danañ wat loi bi bu fekkente ne maanaam daf ko lànk nag bañ ko jox assemblée su waa dañ ko attaqué dañ ko contre aussi ndax tey dafa am ay ndëgg sarax yoo xam mi ngi si biir benn bi mooy Macky Sall xam na ni deux élection mois de juillet 2022 la député war a am bu élection amee Macky Sall du am majorité xam na loolu bu fekkente ne amul majorité du mën a gouverner xam na loolu est-ce que buy indiwaat assemblée bi di ko joxaat gëdd yooyu noonu li nga xamante ni moo amoon ci bu njëkk bi nga xamante ni assemblée nationale. dina am sañ-sañ bu mu xasee ba am fii ak ñaari at président la mënut koo dissoudre mënu koo mënu ko daane est-ce que suba du ko wàññi est suba du dindi loolu bañ ko defal àpp. nga xam ne bu blocage amee opposition bloqué mu mu tas ensemble pour mën a gouverner loolu lépp tamit ay xalaat lay doon yoo xamante ni ñu ngi koy xalaat bu fekkee indi na ko te boole ci loolu wala boolu ci loolu suba ay jàngaleenu yoo xamante ñun ñëpp ñoo koy xamandoo. mais mais mais yéen euh, amoon ngeen sañ-sañ euh, bu dee gouvernement bi liggéeyul ngeen jëlee fi gouvernement bi dissoudre ko loolu point boobu tey euh, bu dee boolewu ko si. mais munu ko si ñàkk bañ a boole ndax loolu dafay àndaat ak sañ-sañu assemblée ndax loolu moo yóbbaale woon li nga xamante ni mooy poste premier ministre bi loolu la àndoon ñetti article muy 97 ak 98 ak 99. muy ñetti article yi nga xamante ne dafa nekk ci règlement intérieur assemblée nationale nga xam ne dafa lëkkaloo ak constitution bi. ci poste premier ministre bi kooku buy ñëwaat daf ko war a indaale ab sañ la. mais lan li xam moo si nekkoon ab sañ-sañam mooy assemblée ki fi nekk njiitu réew maa xam mu ànd ak moom wala mu ñàkk ànd ak moom ñaari at munu ko tànk amul ñaari at munu ko daane. bu fekkente ne indaal waat noonu fan laa xam ne bu fekkente ne aussi tamit dafay wax ne léegi assemblée bi moom heure bu blocage amee. am na sañ-sañ daanu ko su boobaa dañuy xam ni loolu jàngal la war doon moo tax ma jàpp ne opposition bi dafa am maanaam ay erreur yu bari bari yoo xam ne def nañ ko depuis 2017 bi fu may wax ak moo tax il faut que ñoom tam ñu taxawaat. opposition bi opposition bi di di di di xalaat di xool li nga xamante ni fa lañ war a dem te ba ñu xool seen intérêt ndax 2017 tey bu ñu amul maturité opposition bi moo tax amuñu maturité ndax ñàkk gi ñàkkoon ànd. ànd tey jii bu ñu demee tey jii ba élection locale yi jot opposition bi ñi si ëpp ànduñu. loolu seen intérêt bopp moo tax ñu koy kaas maanaam loolu moo tax ànd gi amul. léegi nag bu ñu génnee 2017 génn élection locale 2022 ñu jëm élection législative tey moom. bu dee àndu leen. kenn ku nekk non non il faut ànd mënta am maanaam mënta ñàkk ndax jàpp naa ni su boobaa dafa am loo xamante ni moo fi sës. Hmm. mooy kenn ku nekk bàyyi sa lépp ñu ànd am majorité Macky Sall bañ a jàll maan 2024. Hmm. wala ñu tasaaroo Macky Sall amaat majorité ki mu fi tag maanaam moo xam moo nekk premier ministre kooku jiit liste majorité liste benn bokk yaakaar mu am maanaam majorité assemblée nationale. kooku ñaar yooyu rek maanaam mooy ñu xañ ko. wala ñu jox ko lépp na su loxol opposition bi la nekk. 2022. d' accord jërëjëf euh, honorable député léegi duñ génn assemblée nationale ba tey ndax euh, dafa am say naataango député yoo xamante ni dañ leen a tuumaal ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yow ban gis-gis nga si am ak ban taxawaay nga ci am euh, bi ñuy dindi seen immunité parlementaire. waaw li ma si am wax naa ko te loolu laa doxalee mooy ku ne xam na ne dañoo bindoon benn lettre boo xam ne mu ngi di dugal ci euh, suisse deuxième cabinet bi yónnee ko procureur général procureur général yónnee ko assemblée nationale ñu jot lettre boobu noonu bi ñu taxawee ñu taxawal commission ad hoc assemblée ma nekk vice président commission loi ñu boole ma si commission ad boobu noonu ñu waxoon ni maanaam bu ñu ko sampee président commission ad hoc bi dana dem maanaam ci président assemblée nationale ànd ak membre de bureau bi jëli document yi loolu amul bi mu ñëwee dafa liir document bi kese joxu joxuñu ko ñu liir ko ñun. muy ay miiru ñu ngi la président commission ad hoc mm-hmm. ñun xamul dara si document bi. li ñuy wax ne maanaam trafic passeport diplomatique la nekku si biir document bi nit ñee koy wax rek waaye document bi ñu jot nekku si man lu ma xamul dara dama si maanu parce que loolu la ma askan wi sant. loolu moo waral bi ma demee ba nga xamante ne xam naa ne lii jëmul kër ma démissionné si commission ad hoc bi bi ñëwee plénière tamit kenn déggul sama kàddu ma wax. bi nu wootee tamit woote naa maanaam contre parce que loolu mooy li ma war ndax man dañ ni ma. ah kon voté woo pour ñu dindi seen non dama wote pour ñu dindi seen malaanu kiraay laa wax. dama wote pour ñu dindi seen malaanu kiraay parce que ay tuuma la ni am na yoon soxla na li ma war mooy wote. Mhm. ndax comme que yàlla dogal na am na ay tuuma yu am te man dama sañoon ni ñoom seen jëm bopp ñoo bëgg ñu dindi seen malaanu kiraay ñoom ñoo ko bëgg ñoom ngir ñu mën a seetal seen bopp. nikki nag la mu bëgg dama la si dama la si jàppale. loolu moo waral ma woote mais bu duntoon loolu damay aptation damay def woot aptation wala ma bañ a woote. mais comme ñoom nee ma man naa woote pour que seen mbalaanu kira dindi ko parce que ñu dem ñu dem seetlu seen bopp. mais li ma si ñaawlu mooy ñun assemblée bi ñuy ñëw rapport bi ñu woote ñun rapport bi nga xamante ni moo ñëw ñu liir ko assemblée ñu bind si trafic passeport diplomatique nekk si dossier bi si dossier cabinet jox. muy lu garaaw loo xam ne wax naa ko ministre de la justice barki démb bi mu naa ko assemblée dafa def loo xamante nii dafa ma jaaxal parce que mënu ma nangu assemblée nationale bi nga xam ne moo war a leeral moo war a wane moo war a saytu di gën di lëndëmal. ndax yow bu fekkee jon joxe jox nga si jox nga assemblée lettre boo xamante ni binduñ si trafic passe diplomatique. assemblée nationale delloo maanaam rapport boo xam ne dañ see bind trafic passe diplomatique kon assemblée nationale moom moo taxal boppam. mais mais euh, lan moo tax ay mbiru ñëng bi mu ko liiree ba pare photocopier wut kii bi wala mu jox leen ko ngeen liiree ko seen bopp. waaw léegi nee na loolu nee na loolu moo ko tare te man bëgg naa mu xam fan maanaam mu won ma article bi ko tare. mais laaj ngeen ko laaj nañ ko ko mais mënu ko wax xamu ko. Hmm. ay mbiru si. d'accord ci ngaa gis groupe parlementaire président groupe parlementaire ubbi section unique assemblée nationale ñu fàtt sa tur si ay mbiru dong la am de. d'accord euh, mais honorable député euh, affaire passeport yooyu ndax jàpp nga ne dina mujj feen na du mujj fenn ñoom même bu ñu leen demee bu leen maanaam inculpé dañ leen def contrôle judiciaire xam naa loolu. kenn du leen tëj kenn du leen tëj parce que si Macky Sall lañ bokk. jërëjëf <laughs> euh, léegi nag euh, président Macky Sall fan yële dégg naa mu leen di art yenn opposition bi naan moom kenn nu ko xooxatal te yow bokk nga si ñi nga xamante ni tey euh, dangay ngay songu président Macky Sall ba ñenn ñi sax jàpp ne kàddu yi nga koy wax dafa nekk kàddu yoo xamante ni dafa xaw a dafa xaw a dëgër daal loolu moom lan moo ci sa xalaat. Macky tàppet la tàppet mooy taxaw di wax naan ragaluma Macky xam naa ko dafa ragal tàppet dëgg la moo gën a ragal ci àddina bi xam nga dafa may waxante ni nit ku nit ku nit sax waroo ko wax en tant que njiitu réew mu leer na ni yow amuloo doole Macky Sall amul doole doole jàmm la yore parce que tey bu ne am naa armée am naa police am naa gendarmerie ñooñu ba ñuy jàng seen yaay di leen jur ana Macky Sall te ñooñu nekkul pour Macky Sall dañu fi nekk pour askan wi te bu askan wi soxlaa ñu xam ni Macky xam ni dañu fa nekk pour askan wi te li amul mois de mars wane na ko. mais yéen est-ce que ngeen président tamit. wegg mooy lan. maanaam jox ko cër daal respect jox ko respect. mais man ñu ko jàkk ba jox respect ndax man ba dul dara di président la sama xarit la sama mag la aussi. ba may xamante ak moom di ko jariñ sama papa di ko jariñ mu ñuy def ànd ak moom daa moom yoo xamante ni tey jii ay invitation royaume muy ngabal sama papa ay valisam muy ñëw hôtel député jabaram di ñëw hôtel député fekk sama papa di ñëw bureau assemblée nationale di fekk sama papa mais du tey ah, am na lu am sama digganteek moom am na cër am na respect sama xarit la waaye nag du tee may wax dëgg gi nga xamante ni moom laay wax cër boobu nga xamante moom la ko yàlla jox jox nañ ko ko mais Macky Sall nit la rek comme comme nit ñëpp waaw mais da ngay wax sa xarit la mais du feeñ si parfois kàddu yi ngay faral di jëfandikoo xam nga sa xarit moo lay wax ne la bu sa gémmal xëy na moo naan bala ngaa dem si mbooloo ñu di la ko wax waaw. Euh, jërëjëf euh, honorable député euh, Cheikh Abdou Bara Dolly moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi nag ñu wax ci élection locale yi gis nañ ne am na benn cadre unitaire bu jóg pour dox jàmm am benn charte charte boobu yow dan ko ko gisee. waaw man li ma ko gisee mooy rafetlu naa loolu ndax li tax mooy dama bokk ci kilifa diina yooyu noonu nit munoo bokk dara pare di ñaawlu la nga bokk lu mu doon. waaye mën nañ ko doxal nee nañ ko doxale ndax xam nga ñun dafa am lu ñu liyee mooy ñun ñëpp ñoo bokk liñ bokk diine ji ñoo ko bokk mais kilifa diine da nga war a wax bu wax jotee ndax chaque jour maa ngi wax naan na kilifa diine yi wax ay jamono kenn waxul nee naa leen woon nañu wax balaa atte jot xam nga nit buy xuloo yow nga ne kilifa diine da ngay ñëw balaa xeex a am mais doo nekk ba xeex am bar dee am nga taxaw di dog di wax su boobaa kenn du la déglu da ngay wàcce sa bopp aussi moo tax ñu ngi saluer sëñ taxaa xalifa général des mourides ci jëf ji nga xam jëf ñu ko muy jëf ju mat ndax bi nga xamante ni coow li am na sëriñ Mountakha si boppam dafa yónnee délégation mu ñëw seet suñu te booba ñun ci boppam xamoon na ni Macky Sall am na heure boo xamante ne ak suur boo xam bu fa àggee nguur gi dafay daanu ñun xamoon nañ loolu sëriñ mun taxaa mi nga xam mooy sëñ Touba wax ñu ni lii ngeen bëgg a def muy manifestation bi ñu bëggoon def diggante samedi dimanche ba mercredi midi wurtoon fekk Macky Sall ci réew mi. ah bon oui sëñ bi wax ñu lool mais ñu ñu dégg waxi sëñ bi woote jàmm woote dal. bu ko fekkut fan la koy fekk. Macky Sall dafa waaye fu mu koy fekk maanaam xanaa day day day génn réew mi parce que ñoom mënu woon te ni manifestation yi ba ba mercredi mënuñu ko woon te ni parce que ñun. programmation la am na yoo xamante ne kenn du ko wax sax am na sax ay ministères yoo xamante ne sax jotoon nañu sax contacter defe na nguur gi jeex na ak yenn directeurs yi kenn nekkutoon si dëkk bi ñëpp demoon am na ne ay maa la abal sax fu mu dëkk kon moo lay xamante ne mooy seen i doléance man naa ko en charge dinaa si wax ak ki ma war a waxal moom nag bu fekkente ne la ma ko bëgg wax waxu la ma ko wax mënu ko def dinaa taxaw ni la ma ko waxoon defu ko ba mu yebalaatee sëriñ bi tamit ba mu ñëwee nee na kat yéen da ngeen ma may la leen sëñ bi ñaan def ngeen ko waaye li ma ñaanal Macky Sall defu ko sëñ bee ko wax man waxuma ko de. lam ñaanal mag Sall defu ko kon mooy mag Sall li ko sëñ bi sant du ko def. waaw ndax ki ko fa toog maanaam ki ñëwoon toogal ko fi loolu la wax mm-hmm. mu ne ñeen opposition li ngeen ñaanoon sëñ bi ni bàyyi leen manifestation yi dal leen toog leen dina ko régler may ngeen ko waaye lam ñaanoon mag Sall ni ko dossier bi nanga si xar sànq tubay te ñuy faatu na leen indemniser na nga recevoir seen waajur na fexe ba jàmm am loolu Macky Sall defu ko. ndax ba fi may waxee fukki nit ak ñeent amul enquête ñu ñu ñu rey leen kan moo leen rey nguuru Macky Sall amul benn enquête loolu est-ce que jaaru na parents parents yi nga xam ñoom ñoo jur ñooñu Macky Sall wala leen xam ne ay citoyen du Sénégal bokk deful loolu ñi nga xam ñoo faatu wala ñu gaañu am ay gaañu gaañu lan moo tax état Sénégal mënut jël ay sax pour def loolu tey jël ay nit yoo xam ne teg ko dara amul benn njëriñ askan wi di leen ñuy faju ji ak di leen jàppale. bàyyi ñi nga xamante tey ji may wax a yow ñu ngi fii si benn kër boo xamante ne fa lañ luwee boo xamante ni chaque mois fa la ñuy euh, maanaam maanaam ñu fay leen leen faje seeni parents yi sonn mi bëgg da ñi faatu kenn xamu lan la moo tax ñun bi ñu demee Bignona ñu def benn benn pacte de Bignona boo xamante ni pacte boobu noonu dañu jël deretu ñooñu faatu def ko signature boo xamante ni ñun ñi àndoon ñun ñëpp kenn du trahir sa sa sa sa morom te bu ñu demee 2024 dañu ko leeral ñi rey ñi rey xale yi ñu jox leen seen àq seen yelleef kooku pacte la boo xam ñoo ko signé. léegi euh, président Macky Sall lu tax nga ne euh, maanaam respecté wul euh, xalifa bi la def. mais bu respecté xalifa bi ñi dee nii mu indemnisé leen parents de parents parents yi nga xamante ñoom ñooy nekk parents ñi faatu mu recevoir leen ñi gaañ ñi mu faj leen te defu ko te loolu ndigalu sëñ bi la woon dossier bii nga xamante ne mi ngi si yoonu sulliwaat ko tamit mu bàyyi ko parce que dossier politique la liñ si waxoon du dëgg viol amul. mais mais mais déggoon naa ñu ne mbir mi avant muy jóg. sëriñ bi waxoon naa ak moom ngir mu ngir mu fexe ba lépp tego ci suuf. waxoon naa ak moom may dafa lànk man kay man kay sëñ bi wax na ma loolu. waaw benn ajjum bu mu fa demee di si wax naan ko li ñu jëm nii mu ne wax na ma ak moom waaye déggum loolu ñàkk ko déggal moo tax tey événement bi am avant événement bi am mars bi sëriñ bi waxoon naa mu ne ko dossier bi mu ne ko dossier bi ak seegul si man yoon yi naa nga naa mu ne ko xam naa den ak si yow si mu tax xam na lu ñëwagul tey jii bu dégguloon wax si mun taxaa kon lii du am ndax xamoon ne dossier politique la pour bëgg sacrifier doomu jàmbur yoo xamante ni ban koy jur gis ñu Macky Sall muy Ousmane Sonko kooku parce que duñ ko seetaan waa Casamance duñ ko seetaan parce que mooy seen yaakaar te avenir am yëpp ndaw ñi ci moom ko teg kon du nangu gars yi duñ ko man sama amee ci sama xarit la Euh, kon daal yow jàpp nga ne tey euh, mais mais bu dee tey par exemple tey moom Macky la ndax dañ ko yàgg a tuumaal ne ko euh, maanaam respecté wul li nga xam ne moom la ko kilifa diine yi di wax léegi tey kon yéen way politique yi bu ngeen demoon ci Macky Sall di ko signaloo ab charte nan la mën a respecté charte boobu. waaw loolu mooy li nga xam ne moo tax ni ko Ousmane bañ ko signé man mii noonu laa ko bañ ko signé. ah doo ko signé. du ma ko ndax li tax mooy bal ñoo signé dañuy wax Macky Sall mu respecté li nga xam ne mooy charte bi ñu tënk ñun ñëpp muy constitution bi moo ëpp doole charte bi ñuy wax te respecté wu ko respecté wu parole bis bi mën taxaa wax ci moom jëme ko ci askan wi defu ko defu ko ci opposition defu ko dégg nga mu ne moom dafa am doole dégg nga mu ne moom kenn mënu koo xóob dégg nga muy bàkku parce que moom mbaru làmb ñun duñ mbaru làmb xëy na léegi li am solo mooy lu mel noonu moo tax yooyu ay yëfi caaxaan la yëfi caaxaan la vraiment parce que Macky Sall est am na garantie yoo xam ne ñoom ñoo ñu di def loolu mën nañu jox garantie Macky Sall ni 2024 du nekk candidat est-ce que mën nañu jox garantie Macky ni ko maanaam sa nit ñi nga xamante ni ay eh, ay niru lan nga dindi ko est-ce que mën jox garantie Macky Sall ko bàyyi leen nit di manifester wu te kenn du leen nangam est-ce que mën nañu jox garantie Macky Sall ni ko opposition bi bàyyi leen te te jéem a liggéey si réew mi yooyu yëpp bu fekkente nit ki mënuloo ko garantie doo ko mën sax gis ba wax ak moom te lu mu la wax du ko def nooy def. danga bëgg a ñëw si ñi nga xam opposition nga bëgg leen a diaboliser bëgg leen jaxase ak askan deful ñoom ñooy ñooy ñooy ñetti fitna yi fekk ni opposition du niti fitna ndax koo xamante ni yoruloo ngànnaay dara lu dul maanaam da ngay dem pour seet ñu war a seet ñoo la doo seete xool li am barki démb mbaay fii Dakar hmm, ci Barthélemy Dias loolu est jaaru na koo xamante ni ab maire nga di dox see soxla ñun doo fi dox koo xamante ni ab maire la kay jël ay tiset yor ay camion topp dëkk bi wëndeelu di lambar lambari ba pare nga naan da ngay xeex Covid bi loolu jaarul na non il faut faire ñu arrêter quoi. d' léegi euh, sànq yaa ngi wax ne dossier bi son Sonko dañ ko bëgg a yëkkatiwaat. way dossier bi gars yi ñu ngi si ndax loolu moo tax ñu ñu nommé doyen de justice doyen de justice bi pour lan la pour mu seerwaat dossier bi dossier bi dañ ko yëkkatiwaat parce que ñoom dañuy am benn programme boo xamante il faut ñu dem ko mooy fii ak 2024 Karim Wade du dugg si du ñëw Sénégal. Karim Wade waaw. après élection 2024 ci la Karim Wade doog a duggaat ci réew mi Khalifa Sall fii ak 2024 duñ setal. Barthélemy Dias par na pour condamner ko avant maanaam élection yi wala après élection yi ñu def condamnation bi ñu dindi maanaam li nga xamante ne mooy maire loolu seen programme parce que li problème mooy am na condamnation 6 mois ferme ci affaire Ndiaga Diop bi def na appel condamnation ñoom bu ñu ko la bu ñu ko vayeelee même bu Barthélemy nekkee maire dañ koy dindi comme ni dindi Khalifa Sall parce que loolu loi bi wax boo amee condamnation ferme da ngay ñàkk li nga xamante ne mooy droit civil ak su boobaa même bu waa Dakar tànnee tànnee Barthélémy Macky Sall day def ar décret maanaam. comme ni def Khalifa lañ koy def. loolu programme Ousmane Sonko fexe nañ ba nga xamante ne au niveau de Ziguinchor mën na faa def ay sàcc galgal ba du gagné Ziguinchor muy benn défaite politique muy dossier politique bu ñu ko tegaloon. ñaareel bi mooy ñu fexe fexe fii vingt 2024 ñu sulwaat dossier bi nii donte dañ koy def condamnation à sursis wala loolu pour maanaam bañ bokk élection loolu mooy seen ndax Macky Sall dauphin bi muy teg à sax bi mu far a teg kooku mooy ki ko war a aaral moom jëmmam ndax ñaaw ñaawteef yi mu fi def mooy ki ko war a aaral ñim àdduna ndax sàcc yi nga xam sàcc nañ ko pour ci euh, ci réew mi muy ñu jël suuf réew mi xaalisu réew mi di ko pasar pasare ñoo ñooñu ñi nga xamante ni tey ñoo bëgg Macky Sall def troisième mandat ak ñi nga xam bu fi Macky Sall jógee ñu torox ñooñu nag ñi ngi poussé Macky Sall pour mu def loolu mais Macky Sall parewul pour ko ndax xam na li ko si mën a fekk ëllëg ndax benn mën na si ay doomu aadama yu baree bari mën na si ñàkk nguuram ci jamono yooyu noonu mën nañ ko si topp tëj ko si ñett yëpp maanaam danger la pour moom. bu waxee troisième mandat bu waxee troisième mandat. te avenir am passé na troisième passé na 2024 xale la mais mën na fi teg ki mu fi teg bu gas kenn wóoloon mu dem bu demee maanaam am un an deux ans ñëw nekkaat. kon kon yow daal da yaakaar ne programme bi teg mooy euh, éliminer Ousmane Sonko euh, ci dossier bi. Khalifa Sall kenn du ko amnistie Karim Wade duggaat ci réew mi mais Ousmane Sonko euh, perte si ngeen sorti loolu dina nekk lu lu jafe-jafe euh, mais bu dee éliminer nañ candidat yooyu su ko defee moom day teg benn candidat boo xam ne jàpp nga ne su ko poussé mu mu gagné mhm. ko si bàyyi. ah léegi sénégalais yi moom ñoo nekk sénégal li ñu bàyyi Macky Sall dafa bari léegi nag est-ce que ñoom dañuy continuer di ko bàyyi wala ñoom li ñuy dundee neex na leen kooku maam sénégal ñoo siisi mais pas man d' accord euh, jërëjëf euh, honorable député Cheikh Abdou euh, Bara Dolly léegi ñu wax ci élection locale yi ba tey dañoo gis ne préfet yi dañu déposé ay recours ci cour suprême ndax dafa am cour d' appel yoo xam ne dañoo dëggal ay liste liste yooyu ñu dëggal nag préfet yi ñoom lank def recours Euh, am na ñoo xam ne nañ recours yooyu mën naa tax ñu dàq élection yow lan moo ci sa dafa am lu gën a garaaw loolu loo xamante ni sénégalais war na ko xam gis nga bu ñuy def euh, conseil supérieur magistrat mm-hmm. bépp cour d'appel boo woon nga nga xamante ni da ngaa validé candidat yi opposition bi dàq na la sens na la fa nga nekkoon. cour d'appel Ziguinchor dañ ko rempli maanaam dañoo raafal foofu cour d'appel bi nekk Ziguinchor nga xam ne dañoo validé ñu ne foofu dañ leen raafal ñoom maanaam yëpp dañ leen sensé. COUDAP bi nekk saint wi ña fa nekkoon dañ leen a sensé Souleymane Téliko bi nga xam ne moo nekkoon cees ku ne xam na ni ni mu doon taxawee jàmbaar gi nga xam gëm yàlla xam li yàlla wax ci alxuraan moo di ko appliqué yóbbu nañ ko Tamba. te dafay wax ni ci seen code bi code pénal nit bu la dee sensé fenn nga nekk maanaam benn ndomba tànk boo leen dem fenn nga war dem fukk gën a kawe mais mënoo jóge cees yore li nga yore woon dem fa la yorewaat li nga yorewaat kooku sanction lañ ko def. moo tax ma kay wax ne kon na nekk na daal te ànd ak yàlla yàlla mi mu gëm yàlla mi mu doyloo xam na ne yàlla moom moo fi nekk continuer te yàlla du fi jóge te ñii dañ fi jóge moo tax bu ministre de la justice ñëwee assemblée nationale loolu mooy sama première question bi ma ko laaj mu di layaam layaam di ma tontu naan expérience tax ñu yóbbu ko foofu noonu fekk ne sanction moo tax ñu yóbbu ko fa. imaginé tey seel wi ña fa nekkoon ci cour d'appel validé maanaam liste opposition ñu jël leen fa ñu nekkoon séquence ñu jël leen fa sanctionné maam Souleymane Téliko yooyu moo lay wane rek. am na loo xamante mi ngi si te c'est la première fois histoire Sénégal ay préfet wala ay sous-préfet naan dañuy porte plainte wala dañuy maanaam def recours contre li nga xam mooy justice yaakaar naa loolu c'est honte te loolu ki ñu ko yóbbee mooy Antoine Diome mi nga xamante ni cuuju Macky Sall laa ko tudde cuuju <laughs> Macky Sall loolu moom doy waar sëñ bi cuuju Macky Sall la waaw ah. waaw la pare nekk sniper Macky Sall sniper Macky Sall hmm. waaw moom Antoine moom fi mu doon Antoine moom mooy nit koo xamante ni tey nit ñëpp dee Macky Sall dund boo ko gënal fi mu parce que loolu <laughs> parce que loolu la dund moom maanaam moom Macky mel na ne mooy sëriñam mais mais ko bàyyi mu organiser élection xam naa suñu ñàkk na ñàkk na taalib rek si Macky la jëblu ndax Macky la gën a gëm suñu seex ko dara parce que mooy ñun li ñuy wax soxlawul la nga organiser élection loolu laa ko wax bëgguñu nga organiser élection ndax mënuloo ko mais comme Macky Sall maanaam sàcc loo na Aly Ngouille Ndiaye waxloo ko lu dëgg mu sàcc ba gañee ko élection tey moom la jëkk a dàq kii mois de janvier 2023 ba élection yi jàllee Antoine mi bokk na si ñuy dàq maa la koy wax fii. Antoine Diome waaw. Ah, loolu yéeme na di. billaahi maa la koy wax loolu kay lu wér la moom. d'accord léegi euh, mais élection locale yi bàgg moo ne dañ ko danañ ko dàq. ah ñii daal bu leen maanaam mënuma leen miimal dara nguuru mag sàll gii mënuma leen miimal dara ndax xam naa ni lu ne capable na te faalu woon yi. mais yéen yéen yéen opposition yi tamit est-ce que seen taxawaay dëgg dëgg dëgg taxaw di lànk yéen yéen a ngi koy def. mais lan nga bëgg da bëgg ñu xaru wala ñu toog ci kaw télé bi dee askan wi ñuy xeexal ndax jaral na ko est-ce que askan wi ñuy xeexal ñoom mun ñoo génn seen bopp ànd ak ñun xeex bi ñun li ñuy xeex mooy dund gi dafa seer nan ko wàññi. ambulanciers mm-hmm. yi nga xamante ni chaque mois un million cinq cent sacs de farine dana dugg ci réew mi est-ce que mun ñu ko bay ci réew mi. Mm-hmm. ñu wàññi marum yi jàppale ambulanciers yi est-ce que mënuñu fexe ba nga xamante ni sàmmkat yi daan fexe daan bàyyi surun l'élevage ñu si ñàkk 200 millions 250 millions ci benn suur muy surun l'élevage di jóge si xaalisu réew mi est-ce que mënuñoo fexe ba loolu jóge fi. est-ce que mun ñoo fexe ba agriculture mbay mi nga xamante ni tey moom la askan wi di nekk si tool di bay ñuy fixé ay prix yoo xamante ni ñu koy fixé seen biir climat la ñuy nekk. ba pare maanaam dogal est-ce que mun ñu bàyyi loolu te yëpp ñu maal ko si biir loolu la ñuy xeex mun ñu fexe ba engrais dem si ay àll bi munoo am usine boo xamante ne di dafa engrais di ko jaay si région bi te munoo fa am engrais bu doy est-ce que mun ñoo fexe ba nga xam ne courant bi dana doy ba pare yaatu nga loi dana joxe maanaam 45 milliards ba loi de finance numéro 1 joxe nañ 35 loi bi joxe nañ mu dugg Sénégal est-ce mu àgg si population bi est-ce que mun ñoo fexe ba Sénégal am ndox mu doy ndox mu baax ndox mu neex population man ko jariñu te bañ a seer est que mun ñoo fexe ba sama combat si combat pour le peuple à tax ñu tudd ma le député de peuple jox ma raayé meilleur député sëñ Mountakha ni ma am loolu doy na sëkk ci loxo xam ne moom laa war a def ngi koy def voilà. d' accord euh, honorable député ñu daal di wax ci euh, élection locale yi ci département bu Mbacké yow yaa nekk euh, tête de liste coalition bokk gis-gis est ce que yéen jàpp ngeen ne li nga joto a jàpp ngeen ne yéen ay meilleure coalition foofu. waaw ñu ñooy meilleure coalition ci département Mbacké ndax Cheikh Abdou Bara Dolly ak ab Abdou Mbacké Ndaw maire Mbacké ñoo def une coalition ànd si ak waa parti socialiste yi. waa benn boo ko yaakaar ña fa nekkoon nga xamante ni maanaam leen indil koo xamante ni méngoowul ak waa Touba bëgg ak waa Touba xam ñu contre cas loolu pour ñu ànd ñun ànd ak citoyen ya fa nekk nga xam waa marché occas la dawal ko du sareet yi ak ñi nga xamante ne maanaam ñooy taximaan yi ak dawal ko du mbàkki yi ak ñi nga xam ñooy waa alu yi ñoom ñëpp ñu def benn liste boo xam ne liste citoyen yi la nga tudde ndax boo gis-gis bi bi nga xam mooy borom xob yi ñaar loxo yu jàppoo yi tam weex kooku maanaam bu département Mbacké doo ci gis maanaam ay politiciens yu bari parce que ñu dañu ni citoyens yi il faut que ñu dugal leen bàyyi leen xel si loolu ndax lii dafa nekk assemblée départementale la tudd. assemblée départementale dañuy fexe nag ñi fay dugg nekk ñoo xam ne kenn ku na nga fa jóge ci benn gox ñëw. boo ñëwee di wax li nga xamante ni moom la sa gox war a am ci département bi ñu ñu taxaw si kaw pour ànd ak yow ci liggéey boobu noonu wuti coopération bilatérale ànd ak waa ñi nga xam mooy saoudien yi xam par exemple pour jàppale ñu ak canadien yi accompagne lu pour ñu mën a jëm kanam ñun loolu mooy suñu programme ba pare ñu teg cinq axes yoo xamante ni cinq programme économique ci lañ bokk ndax wax naa ni il faut ñu def relise maanaam tourisme mu relise bi ñu defaraat ko Touba ndax 254 milliards yi muy dugal pour 3 jours yi askan war nañ ko yëg xam war nañu xam ndax li su bari état bi lay dugaat te état bi du ko defal waa Touba. ñaari man problème éducation dañ ko am ndax man ni mu au niveau de Touba gën a deltu ginnaaw ndax tey bu fekkee da nga jël maanaam à pour cent yuy jógee maanaam Touba Mbàkke la ñuy jànge ci amuñu ay bis yu ñu man ne dinaa mat fukki bis ak juróom yoo xamante ni si gratuit lañu xale bi bu ndey jàng di ñëw kenn du fayati paas ba pare maanaam cantine scolaire bi dinaa leen si jàppale ba nga xamante parents d'élèves dootuñu joxe maanaam ay affaire ndékki dinaa ko def si conseil département bi ba pare ma ne leen étudiants yi ñoo nekk maanaam ci cinq universités yi dinaa fexe ba ñëpp mutu leen ay logement jàpp leen seen njàng ndax xam-xam ba ñuy amee ci université yi département ñoo ko gagné ñu jëm si mbirum santé bi ma ne dinaa nga xamante ni dinaa relever technique plateau médical hôpital Ndamatou ndax ku ne xam na ne dafay faju bari mais hôpital bi fees na parce que dafa xat ku ne xam na ne conseil département moo nekk président conseil administration bi fexe tamit ba nga xamante ni ñi nga xam ay jigéen wér la si hôpital yi nekk Touba yëpp dana fa déposé ay somme yoo xamante ni bu ñëwee du si kenn du fayati ñu jëm si mbirum formation jigéen xale yi yoo xamante ne si banque yi dañ leen financé mais dañ leen formation pour que maanaam jigéen ñi ak xale yi mën a am ay métiers yu ndox ndax ku ne xam na ni jigéen ñi xale yi ñoo gën a sonn au niveau de Touba agriculture bi ñëw ay pôle la ñuy def yoo xam ne si commune bu nekk ñu jëm fa def benn pôle boo xamante une somme de 100 ba 150 millions pour xale def benn formation assurer foofu ñu bañ a demal si dëkku taax yi di bay foofu noonu di dundee ba pare wàññi ko di jaay loolu lépp c'est une programme idée la boo xamante ni comme ñun programme la teg nañ ko si département bi pour que ñu xam xam nañ ko bu ñu demee nag maanaam ba yàlla ma ñu ndam la ñu wax 2022 ñu boole ko nan ngeen def ba am ndam mais li ñuy def ba am ndam mooy li liggéey si askan wi ndax ku ne xam na ni askanu Touba mais liggéey na fa liggéey boo xam bu mucc ayib la ndax 2017 ba fi mu falee ba fii may wax ak yow 300 million francs faa génn naa ko ci socialu Touba diggante Touba Mbacké mais kenn defu ko fa loolu bilan la ba pare li ma leen défendre ci seeni soxla ak seeni bëgg-bëgg kenn defu ko loolu bilaa la. loolu nag bu fekkente ne tey ñu ngi koy def ma ànd seeg maire boo xamante ni liggéey na ci commune am ànd ak ay nit yoo xamante ni tey jii ñu am xam-xam lan pare pour jàppale seen commune. ci département bi kooku yaakaar naa ne buñ bilan bii ñu présenté waa ba nga xamante ne xam na ni. li nga xam mooy choix entre Cheikh Abdou Bara Dolly Abdou Mbacké Ndao mooy le meilleur profil dans le département Mbacké kooku moom ku wax dëgg rek da nga xamante ni maanaam loolu. kenn ah, mais mais coalition bi ni ngeen ko tëggee les bi amul yenn frustration amul yenn ñu mer. non ñenn ñooy mer amul ñu mer ndax bu ñu fekkoon ne ak gis nañu mer ñoom ñu wax ko ñu dégg ko ndax képp koo xamante yaa ngi woon ci parti bi cër ba nga si war a am am nga ko si ñi nga xam bokkoon si parti bi delloo dugal leen. mais gis naa waa réew mi euh, Touba am ñu ñëw bokk seen coalition boobu. waaw mais ñëpp la même waa Pastef ak ñeneen ñi nga xamante ne maa waa Yewwi Askan sax am na ñoo xam bokk na si ñu jàppale si ñu te li si gën a bët waaw. d'accord léegi yéen euh, profilu euh, président conseil départemental bi ki ñu teg samp ko def ko candidat benn Bokk Yaakaar Matar Diop ndax nekkul candidat boo xamante ni tey candidat bu sérieux la boo xam ne yéen mën na leen a gagné. kooku candidat humiliation Touba la ak waa Macky Sall daf ko def pour humilier Touba war nañu du ngeen dara ndax Cheikh Abdou Bale ma fa nekkoon nga xamante ni maanaam ku ne xam na ne fi mu bokk sacrifier boppam wàcc boppam jàppale Macky Sall ñu di ko xas ngir Macky Sall waajuram wu jigéen Fatou mu kon ne jàppale Macky Sall rakkam Fatou mu kon ne jàppale Macky Sall waajuram bu góor euh, Fatou magam magam bu góor Fatou mu kon jàppale Macky Sall tey Macky Sall kooku la jël ni ko eh demal tegi fa la jël benn waay boo xam ne dëkkul sax Touba. ñu di ko kaay kaay nga kaay nga kooku humiliation la dama defe ni nag gor yu mel noonu bu fekkee danga leen bëgg toroxal Touba yépp ngay toroxal man ànduma Macky Sall ànduma Abdou Bali mais bi ñu ko defee loolu man war naa ko téléphone naxalu ko nee naa ko lii ñu la def humiliation la parce que bu Matar Diop gagné Touba mooy wan que ni maanaam amul kenn ku sant Mbàkke koo xamante ni tekkati nga dara si dëkk bi te loolu du fa am man sama bakkan laa ci teg Macky Moustapha Matar Diop du gagné Touba tamit tama ne fi. Hmm. sama mais mais président bu jàppee ne moom moo ko mën a gañal tamit am na sañ-sañ tabb ko. mais xam nga loolu lépp ay deal la ak ay lubi man xam naa li xew. ay Mouhamed Saleh yooyu naan ko da samp ñoo xam ne dañoo nekk fi ci parti bi loolu yëpp euh, commune bu Touba ànd nañ pare nañ pour soutenir Matar Diop au moins. mais loolu amul ndax ñi nekk Touba ñëpp bokk benn bokk yaakaar wax naa ne la tey jii benn bokk yaakaar juróom-ñetti parti yu doon jàppale benn bokk yaakaar mi ñuy jàppale ñun. juróom-ñetti parti yoo xam ñi ngi si benn bokk yaakaar muy waa kër Madiagne Fada waa parti socialiste yi waa AFP yi nekk tuwaa ak waa kër Sëñ Mbàkke Njaay ñi ak ñeneen ñeneen ñooy yëpp ñi ñuy jàppale te benn bokk la nekk ak ñi xamante ne tey ñoo bokkoon benn bokk yaakaar yëpp ku ku si mel ñu nekk ay yooyu yëpp xale yi ñëpp xale nekkul fu yëpp ñu ngi ñëw pour jàppale ñu ndax xam na ni projet bi ñu leen jox ak programme bi leen jox mooy programme bi gën ci département bi département bi nag dañuy xool li gën mais duñu xool li gën ci Macky Sall parce que li problème yëf yi yëfi Matar Diop la ak Cheikh Abdou Bara Dolly yëfi Matar Diop la ak diw yëfi Matar Diop ak diw mais xanaa duñ jënd jënd laa jàpp te population bi pas sama njariñ parce que man bu doon man kese soxluwuma ko député soxluwuma te ma nekk foofu noonu mais dama xam ne li ma yore ko ci néew mën naa servir population bi ndax bi nu falee député la ma def bu ma ko nekkutoon du ma ko am parce que ngërëmu Sëriñ Tuubaa li ma jot a am rek si nga xamante ne mooy bi ma amee meilleur député te sëñ Mountakha wax ma ko rek loolu jar na maanaam ba ba jar na daw ba dee. waaw mais xam nga tamit moo leen woon loolu quoi. mais xam nga tamit euh, boo xoolee euh, département bi candidat euh, yi tamit boo xoolee presque ñu si baree baree bari say mbokk lañ. Uh, ku si mel ni tey uh, sëñ fàllu Mbacke jiite yeewi askan wi kooku tamit mënoo wax ne uh, du candidat boo xamante ni candidat bu sérieux la. xam nga Fallou Mbacke bu mu doon man du nekk candidat sama mbokk la bi muy dugg sama pël sama baay moo ko dalal sëñ Bakk Soxla moo ko booloon ak moom ni ko demal sa maam sëñ Baara moo ko njëkk sampal mitin sëñ Baara dem fa ànd ak Amin mu am si politique sama baay la ko jaar xam naa ko baax a baax bi ñu koy nommé secrétaire fédération bi tamit. lu tax parce que amul amul département bi njariñ amul benn bilan bu mu fa def ndax mënuma nangu yow ngay dund si fond de dotation di concours. jënd ay oto jël ay policiers yoo xam ñu ànd ak yow nga leen fay ta teg lépp salaire la ko def tey ji am na ñoo xam ay conseil la yoo xamante ne tey ñi ngi fa nekk am ay session yu def ñu leen fay patronat bi nga xam conseil département bi ñoo ko jëlee woon ci conseil régional sax tey ji saax-saaxee nañ loolu ba pare ñaare mu këpp yelwaan yi waa Askan Wi ndax waa Pastef dañ fa liggéey liggéey bu am solo ba tàmbali woon di su jóg Fallou Mbacké taxaw fee bëggoon commune Touba doon si wax ak sëñ Sidi ak sëñ Moustapha Ndiagne ba amoon si yaakaar ñu def ay réunion ñoom ñu ne moom nekkul candidat ci Yewwi Askan Wi jékki ba nga xamante ne xam na ni commune bi joxuñu ko mu taxaw ne candidat lay doon mais ñooñu waa Yewwi Askan Wi bu amee fulla ak fayda dañuy xeex combattre candidat Fallou Mbacké ndax ñoom bu ñu gañee Fallou gañee ñoom dañuy wax ni yéen amu leen fu benn njariñ te subaa député yi daf du leen tànnaat loolu moo waral tey bi nga xamante ni Yewwi Askan Wi amoon nañ mandataire bu njëkk tey mandataire boobu noonu dañ ko dindi samp fàllu ndax boobu fàllu nekkutoon candidat yooyu moo lay wane nit ki da ngay gëm sa bopp xam na ni fàllu bu demee mel ni moom kese du am dara mu sukkandiku ci yiwi askan wi Ousmane Sonko nag dafay nit ku baax ndax comme moom jàpp na ne da koo jàppaloon élection présidentielle il faut mu delloo ko xorom si mais te amul benn nit bu bokk Pastef boo xam ne Fallou Mbacké dugal na la ku dul xaw ma seex coro xaw ma te moom bu noo jaaru woon tey jii li Pastef am Touba kenn ki nga xam moo bokk Pastef moo jiitu la si professionnel moom mu jiitu la si majorité bi ñu def benn équipe àndandoo dem mais xool tey ji commune tey ji yi askan wi au niveau euh, de département Mbacké daanaka juróom-ñetti communes yoo xam amuñu fi liste ay lu grave la. Ah, yëpp am na juróom-ñetti communes yoo xamante ne maanaam amuñu fa liste. yow askan wi yow waaw PDS waxi PDS euh, moom même même wala bu Cheikh Bara Doli bi Cheikh Bara Doli nekk dama ni kooku Fallou Mbacké yam ndax moom moo nekkoon premier vice président conseil département dafay <laughs> cent Cheikh sama mag la premier vice président conseil département moo ko nekkoon dafay cent mille ak cent litres essence boole ko président groupe parlementaire kooku bu meloon na mu war a mel ak sama diggante ak moom man mii lay bàyyi ma ji ndax wàllu Sénégal man mi maa ko joxe bu ko defee ñoom ñi nga xam ne dañoo bokk PDS amuñu benn base pour que ñu bëgg a ñëw aaki moo yëf te loolu du am duñ nangu ndax ñun li ñuy ñor mooy intérêt ak dono bi fi Abdoulaye Wade bàyyi woon nekkul dono deret tey boo gisee ki nga xam moo nekk sax maire Dakar candidat maire Dakar bi lan la doomu Abdoulaye Wade la jege li mu nekk doomu Abdoulaye Wade moo tax ñu def ko ko Doudou Wade ah mais xam na ni Pape Diop moo gën profil foofu noonu Doudou Wade bu fekkente ni maanaam moom fexe na ba nga xamante ni Pape Diop tàggu nag Ablaye Wade pour moom mën a profité nga xam ne bu ñu demee élection législative 2022 pour Doudou Wade jiit liste liste nationale bi ndax xam na ne bu fi Pape Diop moo koy jiite te du ne moo nekk sama grand frère nga xam ñoo bokk groupe bi bëgg a fexe ba nga xamante la famille doli doli bi dana leen sacrifier suñu wari Touba ndax xam na ne bu séparation amee mën nañoo bañ a gagné ñoom xam na loolu quelqu'un politique boo xam ne si am deal ak Macky Sall. waaw mais est ce que Cheikh Bara Dolly tamit amu si pas de responsabilité. non amu si pas de responsabilité parti moo la ko yaay jiite ndax man parti bi ñoom bi ñu defee coalition bi man maa nekkoon candidat ndax man maa defar li ma wax maa joxe turu wàllu Sénégal man maa ko joxe maa bokkoon si commission investiture bi man maa bokkoon si commission communication bi bi ñu waxtaanee ñu ne kat foofu nañu xool diggante yow ak Cheikh Mbacké kan mooy nekk candidat Cheikh ne moom amulum si bëgg lum si bañ. ñoom ñu ne man man du ma dem parce que nekkuma PDS loolu ma yore fay wax nekkuma PDS moo tax waruma jiite te sëñ Cheikh moom boo fekkoon bàyyi woon na ko sagoo bàyyi ko cëggul guyam kese yàlla seet na du xëccoog man ndax yéen na ma lu nekk mais comme parti la jiite parti am ko yaay dem bu ne ko dem keneen koo xamante ni mais kenn xamu ko. mais est ce que jàpp nga ne Cheikh Bara Dolly euh, mën naa gagné département Mbacké. non mënu ko gagné ndax xam nga département Mbacké PDS dafa xamagul boppam. dafa defoon la amoon moo fi am ba tey mais bu ñu génn si élection 23 mars euh, janvier dañu xam ni PDS ga fa nekkoon nekkutu fi Ablaye Wade du ñëw tëllu ko sax ñu ngi ko ñaanal wérgu yaram mu gudd fan mais Ablaye Wade du tegaat fii parce que tëllu ko li ñu def ay lubi naan Ablaye Wade daje na ak loolu lépp dara amu si Ablaye Wade daje wut ak kenn Ablaye Wade maanaam depuis 4 mois ngi nii dafa tëju. dafa tëju kenn gisu ko. wala feebar. ñu ngi ko ñaanal daal wér ak jàmm mais kenn gisu ko. kon bu fekk ay nit ñooy bind daan Abdoulaye Wade naa naag waa coalition bi daje naag kenn coalition bi kenn demu fu pare ñaareel bi mooy waa PDS ñu nekk tuubaa ñu si baree baree bare àndoon ak Karim si ànduñoo ak Cheikh Mbacké Bara Dolly man lan àndal. lu tax ànduñoo ak moom. mais xaw ma laaj leen ko ba pare yëf yi yëf yi PDS yëf la mooy est-ce que sëñ Cheikh bi mu nekkee maanaam député ba léegi jariñ na askanu Touba dara est bi mu nekk groupe parlementaire mi ngi leen di jàppale loolu mooy li nga xamante ni moo jar laaj. waa Touba te Touba Ablaye Wade du seen sëriñ dañoo séqoon ak moom ngor fay nan ko ko ba pare lan moo des lii yëfi local la. amul mbubboo jëmi Ablaye Wade naan Ablaye Wade Ablaye Wade du gagné waat Touba maanaam ndax Ablaye Wade politique Touba tey lii du yëfi Ablaye Wade Ablaye Wade bokk ci liste bi. Ablaye Wade yoonam nekk ko si commune ba. ndax wala da nga gis ne dañuy mbubboo Ablaye Wade dama ne wàllu seen bopp la. waaye du wàllu askan wi ndax man mi ko génnoon pour wàllu askan wi léegi damaa dindi surru bi dugal ko si bokk gis-gis waa wàllu wàllu Sénégal. d'accord mais léegi am na beneen candidat bu fa nekk docteur Ablaye Niane aussi. mais kenn xamu ko kooku technocrate la mi ngi woon fii impôt domaine après mujj maanaam génn foofu noonu xamu fu mu nekk léegi ab am xam-xam noonu population Touba dafa am koo xamante ne da ngay jege nga leen nekk candidat sérieux au niveau du département di jàppale si la man kooku lañ waa defal Abdoulaye Niane yow mi yaa ko xamee kenn xamu ko ndax bi muy ñëw si coalition bi dafa jàppoon ne bu ñëwee dana mën a jiite pour maanaam nekk candidat mais ñu ne ko yow fii xam nga doo fi nekk candidat yow kenn la foo toj. tuju fenn kon kon kenn miinu ko ah, ko Touba. yow ko wax ko mais Matar Diop koy waxal. nañu bari xam ñoo yam rek ak galaw bi ñëpp ngi fii bu feebaree sax du fajoo Mbacke mais est-ce jàpp nga ne mën naa gagné Gallo Ba. ñëwaat ah, foofu parce que lu tax mooy Abdou Mbacke la mu fa def Gallo euh, xaju di ko def bokkuñu sax. mais mais dama ne même li mu yor moo ëpp maire doole li mu yor nii moo ëpp maire doole nekkoon na DRS ministre de la santé mm-hmm. est-ce que tax na Mbàkke am hôpital jox na ko fii direction boo xamante ni ay milliards lay seere est-ce que tax na Mbàkke am dara ñu ne galabaa ko fi indi mm-hmm. jabaram néewu fa baayam néewu fa yaayam néewu fa ay doomam nekkuñu fa du fa fajoo weekend bi weekend la fay ñëw kooku danga ko jënde ka nga xamante ne tey boo demee këram fekk fa soxna mbay doomu borom dër bi nga xam bu doon góor mooy da nga ko jënd ki nga xamante ne tey moo tax sëñ Touba am kër Touba Mbàkke da ko jënd ki nga xam moo tax sancaan yi am ay hôpital ak dispensaire da ko jënd ki nga xamante ne moo tax maanaam Mbàkke tàmbale ñu dafa stade bi da ko jënd ki nga xamante ni tey doomu dëkk bi la mu liggéey foofu noonu entre duo Abdou Mbàkke Baar ab Abdou Mbàkke Ndaw c'est le meilleur candidat département te bu ñu gagné dépendance soxla ko ndax département Mbacké moo jël affaire ndaare Sédhiou kese la raw te loolu nag war nañu ko dindi ñu ah. xoolaat. jërëjëf euh, honorable député ñoo ngi lay sant la gërëm. ñoo ngi lay sant la gërëm baax. jërëjëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a doon déglu réew mi FM loolu moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité woon honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly mu bokk ci euh, bokk gis-gis nekk euh, candidat ci conseil départemental bu Mbacké ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay